coowul Ousmane Sonko ak Adji Sarr bokku ci coow yi gëna mag yi laaleegum ak histoire bu politique bu Sénégal te weeru février atum 2021 ndaw si du wuyoo ci turu Adji Sarr di liggé ci salon bi ñuy wax Sweet Beauté ñu fay defal massage ak lu di mel yëkkati ay tuuma te ko ci ndoddul kii di Ousmane Sonko nek opposant politique wante tamit du parti bi di Pastef les Patriotes ci jamono bi nga xamni Sénégal dafa nek ci couvre-feu ngir fièvre Covid 19 mom ndaw si di xamle ni ki di Ousmane Sonko dafa ko doon sàkku maanaam di ko violé ko ak ay menaces de mort ginnaaw lolu fi ci askanu Sénégal loxo daal dar kat yu bari di jóg benn laaj bi di sampu ana mbir mu ni mel naka la mën a amee loolu sax moo waral ñu bari ci sénégalais yi toog di xaar jëmm ji di Ousmane Sonko mu indi ay leeral ci mbir mi ñu koy tudd diir bu gàtt ginnaaw loolu moom leaderu Pastef bi jàkkaarloo ak askanu Sénégal xamal leen ni naam bërëb boobu ñu koy tudd dem na fa wante li ñu koy jën jëm ci wàllum viol mu dara loo xam ne am na ca mu ca yokk sax di xam le ni teewaayam ca bërëb lu dul lu jëm ci wàllum wér-gu-yaramam ba leen ni mbir mii am ku nekk ci ginnaaw ngir bëgg koo éliminer ci kenn ki ki nga xam ne moo di njiitu réew mi président Macky Sall xam ne lu ko du dul éliminer un adversaire politique ba nu jógee ci loolu le 3 février 2021 ndaw si di Adji Sarr daal di porter plainte Ben weer ginnaaw loolu ba tey du 3 mars 2021 moom Ousmane Sonko yoon daat koy woo mu war a wujji ci tribunal de grande instance de Dakar ba muy dem di wujji ca wooteb yoon nag askanu Sénégal ñu bari dagg topp ko mu mujjee jur pëccëxoo bu rëy a police ak gendarmerie dugal ci seen loxo ay jàmmaarloo yu méttee métti mujjee caa am ba moom Ousmane Sonko ca mujjantal ga daal di koy arrêté pour trouble à l'ordre public arrestation bii nag mu mujjee jur jéeju rëy rëy fii ci diwaanu Sénégal askanu lëmm mànkoo def wenn say boole li leen yàgg a metti ak li leen di soog a metti fas yéene jàmmaarloo ak yoon baare tali taal yàq moomeelu France lu ci mel ni Auchan ak Total police ak gendarmerie ni leen du ci dal waral ba lu toll ci fukki bakkat ak ñeent daa cay jotorot ginnaaw événement yu metti yi nag garde à vue buñ prolongé daa cay toftalu ba nu jógee ci loolu Ousmane Sonko wax le doyen des juges di Samba Sall mu ko da nekk luñ mën a jàppee benn victoire ci Ousmane Sonko ak ñoñam mu nekk mbégte mu yaatu lool waral ñu feetoo ko bu baaxa baax ba nu ci mbir mu ni mel moom mi di doyen de juge de Samba Sall jé génn aduna ginnaw feebar bu ko daanel ñu jël dossier bi teg ko ci loxol kiko remplacer remplacé di Omar Maham Diallo nekk le nouveau doyen de juge mars 2021 mars 2022 baak légui mu def at coowul Ousmane Sonko ak Adji Sarr continue di lëmbe Sénégal liko dalé ci télévision radio ba ci site internet ay débat ak bëccëg ñi faré ci nguur gi di mouvance présidentielle di xamné ni moom mi di Ousmane Sonko ak lu mëna am dina dem wuy ji yoon té banen genn wàll ba ñu di opposition ak askanu Sénégal ñi ànd ak moom di xam leen yi mbir mi du dara lu dul wàllum politique ak ay complot loolu sax moo waral ay audio doy waar daal di a fës ñu coy tudd kii di Mamour Diallo di xam leen ni moo nekk ci ginnaaw complot bi wante tamit kii di MC Niass di sëriñu Adji Sarr daal dugal loxoom ci coow li ginnaaw loolu lépp nag moom mii di doyen des juges du Oumar Maham Diallo jot naa woo kii di Adji Sarr daat koy auditionné ci coow li nga xam ne ñu koy dégg na ni egsi na muy wooteb kii di Ousmane jàmmaarloo ak doyen des juges ci mbir mi ñu koy tudd bés bii sax moo waral lii di police ak gendarmerie daal di amal mobilisation bu am solo wante ca ba également ñii di ñooñu ba keroog ñu di doyen des de mort ginnaaw mën a am jëm ci kii di Ousmane Sonko bi ci jiitu mooy mën na koo defal non lieu maanaam li ñu ko jiñ amul dara loo xam ne am na ci ñu daat koy bàyyi mu continuer ab liggéeyam wa ilaa aussi ginnaaw audition bi moom mi di doyen des juges mën na ko daal di fixer un procès ñu dem ci correctionnel daal di atte mbir mi diggante mu daal di sàkku ab jugement renvoyé daal di ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko sous mandat de dépôt coowul Adji Sarr ak Ousmane Sonko jot a jur jee ju rëy rëy fii ci diwaanu Sénégal mu mel ni di Ousmane Sonko jërë ngeen jëf ba baneen yoon